sëddiiti baayam lay royaat leeru cosaan ga day royaat nday jaadi xayru musinaat moo doon mbooti xarnu bi ma wax la ci ay jikkoom lewet wayaf ànd ak sagoom te niru na baay ba mat na doom ëmb na ker sax xarnu bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër sëriñ Fallilou Mbacké ginnaaw bu nu jotee ndigal ci xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacke mu wàcc ci Serigne Abo Mbacke mi nga xam ne moo di xalifa Serigne Fallilou Mbacke ñu jot ndigal ci ki nga xam ne nag moo di kilifa ki nga xam ne mooy woote bis bi mu di Serigne Waseynu Mbacke Serigne Ateex Mbacke ibnu Cheikh Mamadou faadal ñu dellu si nag di ko woote waat mu war a dolloog fukki fan ak juróom ci weeru janvier bi le 13 janvier 2019 ñu di ko amale ca Dakar ca parcelle sëriñ Ousseynou Mbacke jot ndigal ci kilifaam yu baax yooyu fas yéene koo woote mu ne dineen jox kàddu gi ki nga xam ne moo di sëriñ Modou Diop mu woote ci turu donga yi nga xam ne ñooy donga ànd liggéeyal sëriñ Fallilou bu nu noppee ñu jël kàddu gi jox ki nga xam ne moo di soxna Yacine Cissé mooy woote ci turu mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëriñ Ousseynou di woote bis bi bu nu noppee nag jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne moom lan tudde bis bi mu di si alxaaji Mbacke Bousso mi nga xam ne mook sëriñ Fallilu ñoo àndoon dem màkk te bis boobu nga xam ne moom la dellu si woon moom la sëriñ Waseynu di màggal mu yebal imaam ja nga xam ne mooy jiite ca mbàkke jàkkay sëriñ Mbàkke Busa mu di sëriñ Seex Busa Asan mu ànd ak mbooloo mu bari fa yéene jël kàddu wax ci turu bis boobu bu nu noppee ñu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne nag moo di sëriñ Fallu Mbàkke ya mooy wax ci turu Serigne Seynou Mbacke bu noppee ñu jël kàddu gi nag jox ko Serigne Galas Kaltoom mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne Ateex Mbacke ak mboolem njaboot ak Serigne Fallou kon mbokk yi bis baa ngoog ñu fàttali leen ko la 13 janvier lay doon deux 2019 ñu di ko amale ca Ndakaaru ca parcelle. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñoo leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm. di leen yëgal 15e édition màggal grande journée màggal retour de la Mecque di Serigne Fallou Mbacké war a amee fële ca Parcelles Assainies unité 17 le 13 janvier 2019 ñoo ngi ciy woo mbokki jullit yëpp mbokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi waa bitim réew diaspora bi bàyyiwuñ kenn Serigne Ousseynou Mbacké ànd koog euh, daaira wal baldu tayibu ak waa kuréel ànd liggéey Serigne Fallou Mbacké kon képp kuy jullit rek rawatina képp kuy taalibe rawatina képp kuy soppeeb Serigne Fallou ñoo ngi lay woo ci bis boobu waratoom a tombeeg dimanche fukki fan ak ñett ci weeru bi képp kuy julli rek rawatina koy taalibe ñoo ngi lay woo ci bis boobu zalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa'u wallaahu zul fadlil aziim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad ñaanal suñu xalifa Sëriñ Fitaxa yàlla yàggal ko fi loolu te ànd ak wér maa ngi lancé appel di woo sama mbokk jigéen ñëpp ci journée grande journée retour à la ñu koy amal le 13 janvier ci esplanade bu Parcelles Assainies ma ciy woo sama mbokk soxna yëpp waa Sénégal diaspora bi bàyyiwuma kenn ma ci woo waa Parcelles yëpp waa Pikine yëpp waa Touba waa Thiaroye waa Boune fépp foo xamante ni Serigne Seydou Mbacke am na fa wolore maa ngi la ciy woo ci journée boobu di leen wax ne suñu ñëw en masse parce journée retour à la bi ñu ngi ko déjee à Serigne Mbacke Bousso mi nga xam ne moo àndoon ak Serigne Fall dem ca aj màkk ga ñu ngi ciy woo mbokk soxna yëpp di ci woo mbokk taalibe yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm ci fukk fekk waay nekk yàlla na jàmm jooju agsi ci moom ci barkeb Serigne Touba barkeb Cheikh Mamadou Fadil di leen nuyu ci turu suñ kilifa Serigne Omar Bousso xalifatu sëriñ Mbàkke Buso waxoon nañ teew ci bis bi ànd ak sëriñ oseynu ci woote bu sell bi muy woote jëme ko ci maamam ju teddu jooju muy Cheikh Mahamadul Fadil di sant sëriñ Touba ci xéewal gi mu ñu xéewali Cheikh Mahamadul Fadil ak àggale gi mu àggale woon ndigalul sëriñ Touba muy jooxe ji faratay ak Makka te àndoon kook jàmbaar yu mag yooyee muy alxaaji sëriñ Mbàkke Buso ak maam Cheikh Anta sëriñ Ousseynou na ngir eh, gën a feddali wëlër woowee tax mu mu dara jaale bis bi sëriñ Mbacke Bousso sëriñ Omar wax ne loolu am na ci mbégte lool sant na ci lool it nee na mi ngi ciy woo mbooleem koo xam ne eh, dangaa sotoo ci sëriñ Bousso bi mbooleem koo xam ne dangaa sotoo ci sëriñ Mbacke Bousso eh, di doom ci moom wala ngay sët ci moom nee na mi ngi la ciy woo di ci woo mbooleem taalibe yi aju ci sëriñ bu Bousso ak mbooleem waa kër sëriñ Touba. mu ngi leen di woo ci bis boobu sëriñ bi na mi ngi lay ñaanal bis bi ñu àgg ca ak jàmm dugg ca ak bisimillahi rahmaani rahim génn ca ak alhamdulilahi rabbil alamin jëlee ci ngërëmul sëriñ Touba ak ngërëmul Cheikh Mahamadul Fadil sëriñ bi na la mi ngi woo ñëpp rawatina taalib yi nga xam ne ñoo féete ndakaaru nag nee na mboolem ko fay jëwriñ ci kër sëriñ Mbàkke bu su rek mi ngi lay yëgal bis bi nga ànd ko sëriñ Xuseyn ba mu àgg te na mu ko bëggee mboolem njaboot gi tam mu ngi leen ko yëgal di ci woo ñëpp nee na mi ngi koy yëgal sëriñ aboo Sall mu nga xam ne kenn ku ne xam ne ni mu doon ci kër sëriñ bu so doon fa jawrin féete ndakaaru sëriñ bi nee na mi ngi koy wax yëgal bëgg mu jàpp ci ni mu daan jàppe ci bis yi jiitu woon dañ daan tudde sëriñ Mbàkke Buso sëriñ Ousseynou daal kàddu yi gën a woote la rek kàddu yu cant la ak woote yoo xam ne sëriñ bi daf noonu nañ ko yëkkati ci bis bi di ñaan ñu àgg ci ak jàmm te dugge ci ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin bokki jullit yi bokki taalibe maa ngi leen di nuyu ci turu Serigne Serigne Xaseynu Mbàkke moom Serigne Atteex moom sëriñ Fàllilu mi nga xam ne mooy responsable moral bu daayira wal baladu tayibu di njiital kuréelu ànd liggéeyal sëriñ Fallou ak mboolem ñi mu àndal. ginnaaw bi mu jotee ndigal ci xalifatul am li taifatil muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke yàlla na ko fi sunu borom yàggal te wéral ko ak ci ndigalal Serigne Abul Baraka mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Amadou Fadil ci ndigal ak kilifteefu waajuram Serigne Atteex Mbàkke moom Serigne Fàllilu ci kilifteefu sëriñ Abbas Mbacke xalifa maam Thierno Ibra Faati borom Daaru Moxti ci kilifteefu sëriñ Thierno Bousso xalifa sëriñ bu Bousso ak mboolem mbokk yi sëriñ seynu mooy fàttali ak yëglewaat bis bii nga xam ne ci lay liggéey ci toolub Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te jaareele ko ci waaru Cheikh Amadou Fadil muy fàttaliku ñibbi si màkk sëriñ Fallu mu war doon dimanche ca Esplanade mairie bu Parcelles Assainies muy bis boo xam ne bis bu am solo la ci histoire yoonu murit di bis boo xam ne histoire da ko bind ngir Serigne fallu dafa demoon ngir mott li yéene Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci toofeex Serigne Touba ak pas-pasu Serigne Fallou ak sopp gi mu sopp Serigne Touba ba wax ne saf kudd moox yi li xubbil xadimi fardan araa tuur sarongoñ ngir sopp Serigne Touba Serigne Fallou neen farata la cofeel goo gii ak pas-pas boobu moo tax li ëpp ci mébét yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul amoon na ko sunu boroom jaarale ko ci Serigne Fallou mu mottali ko bokk na ci mébét yooyu mooy aji màkka mu doon yoon wu yéeme woo xam ne lu nekk xew na ca mu àndoon ak ñun ñu tedd ñun ñu sell fekk fa ñu tedd ñu jox ko fa wàccuwaay yu kawe yaaram yi def nañu fa xeeti ganale lu mus la am yasri ba dañ daa dënale noonu mu meloon ca màkkatal mu karam yell na ñibbisi gi itam ñu barkeelu ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn ginnaaw bi Cheikh Amadou Fadil ñibbisee mu mel ni daf koo dencaloon kenn ci ak njabootam di ab sëtam muy sëriñ Ousseynou Mbacke moom suñu atteex moom suñu fàllilu mu ñëw woote bis boobu ci ndigalal ay kilifaam ngir bëgg ñëpp jariñu ci ñëpp am ci tuyaaba ji ren du fukkeel yoon bi ak juróom maanaam quinzième édition bi mu dara jaale ko itam sëriñ bu Bousso ndax kenn la ci ñi nga xam ne bokkoon na ci ñi Sëriñ Fallu àndaloon ci yoon woowu yi muy nijaay Sëriñ Fallu itam di boroom xam-xam bu mag di murit saadix boo xam ne su Bàmba doon fi'lu mu man di faa'ilu mbaa mu di maf'ulun bihi ni faadilu mooy fi'lu maadin dootu am mudaari'u kenn du nu rooteeg moom bi am amri shari'u Sëriñ bi Buso moom mii la Sëriñ Useynu dara jaale bis bi ngir dundal ak bokk waaye itam fàttaliku ànd bu rafet boobu yi nga xam ne alxaaji Falilu àndoon na ko ak alxaaji Mbàkke Buso kon ñi ngi koy ànd ak mboolem njabootu Serigne Mbàkke Buso yëpp tàmbalee ko ci Serigne Omar mi nga ne mooy xalifa bi ba ci mboolem njaboot gi Serigne Hussein itam di ko yëgal njabootu Serigne Touba yëpp li ko dale ci kër si Amadou Moustapha ba ci kër si Amadou Murtada dale ko ci kër soxna Fatja Mbàkke ba ci kër soxna Maymunat As-Suxra di ko fàttali itam bokki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Fallu xam naa sëriñ Gallas Kaltoom dana ci ñëw léegi ndax bis bi seen bis la di ko yëgal mboolem seex yoonu murid yëpp di ko yëgal itam këri diine yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi di ko yëgal waa diaspora bi ndax ñoom bis bi seen bis la ndax suñ sëriñ Ousseynou bu amalee bis bi fii ci réew mi lu mu ci teg rek dana dem foofu ci bitim réew Europe mel ne Espagne Italie France Allemagne ngir ànd fa ak ñoom liggéey bi gën koo yaatal bu baax a baax Euh, di ko yëgal ay way juróom yoo xam ne yàgg nañoo ànd ak moom bis bi ku mel ne sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir sëriñ Abdou Saman Mbàkke moom sëriñ Sohaybu sëriñ Baara moom sëriñ Sohaybu ak ay bàjjanam yoo xam ne itam yàgg nañ koo fekk si ci bis bi ku mel ne soxna maam Faati Mbàkke euh, Isine benn tali ak soxna maam Faati Mbàkke xar yàlla monsieur le maire Moussa Sy bis bi bisam la ndax mooy dalal sëriñ Ousseynou ak mboolem ñi mu àndal am na ci ay taxawaay rafet yoo xam ne Euh, daf ko ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp taxaw ci taxawaayu rafet di jaar ci moom itam di ko yëgal euh, président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall ak euh, première ministre am Mohamed Boun Abdallah Dionne ak mbooleem gouvernement bi. di ko yëgal itam waa opposition bi ndax Serigne Ousseynou dafa tëdd njaaxanaay ñëpp ay soppeem lañu ñëpp ay xaritam lañu ñëpp ay wëllëreem lañu kon ku nekk ci ñoom wàccuwaay wi nga am ci moom mi ngi jaare ci wàccuwaay boobu di fàttali bis bi. ñu yëkkati kàddu ci turu sunu kilifa. di soññee bis bi nga xamante di ko ànd ak bokk yëpp ñu koy yëgal mbokk yi nga xamante ni dañu bokkal ci sëriñ bi ci wet yëpp nag ngir ñu ñëw ci bis bi nga xamante ni bisu pajug ajo la ndax ki fi jóge woon dem am lu mu doxi te yàlla digle ko mu doxi ko mu mat sëkk ca fam ko doxe dellusi indaale yiwu réyam wa mu indaale woon waxtu woowu bu ñu tolloo ci di ko fàttaliku ngir di ci sàkku yiw bu jóge ci sunu borom jaar ci Cheikh Amadou Fadal mu àndoon ko mbokkam mu baax ma sëriñ Mbacke ak li yàlla doxale ci mbokk gi ci diggante bi lépp di aw yiw kon ñu ngi woo képp koo xamante ni kii ku bëgg pajug ajo nga nga xam ne bis bi pajug ajo xaj na ci yal nañ ko ci yàlla mottali ba ñu àgg ci bis ba ci jàmm ba lépp loo xamante ni lu ci yéene la parce que ci yéene taxawee wala yittewoo ko ci sa yittey bopp yan na ko ci yàlla def saafara ci barke Cheikh Amadou Fadal di ñaan yàlla Serigne Ousseynou yàlla na nga yàgg a taxaw bis bi ci turu bokk yi fi teew yëpp yàlla defal la ci ndam lu kawe sa njort nga am ci sa ngërëmal maam te yàlla yàggal fi sa wéyjur Serigne Ateex dolli ak wéram te yàggal ko ci sunu kanam ci barke Cheikh Amadou Fadal jërëjëf. mbokk yi bis baa ngi noonu le 13 janvier 2019 ñu di ko amale ca ndakaaru ca parcelle bis bi nag programme bi nii lay tëddee bu nu xëyee dinañ amal njàngam alxuraan ak xasida def salaatu ala nabi bu nu jullee tisbaar amal bernde yi bu demee ba 18 heures ci la ñuy amal waxtaan yi nga xam ne moo aju ci diggante suñ sëñ Mbàkke Buso ak sëriñ Fallilu Mbàkke mi nga xam ne moom lan tudde bis bi moom suñ sëñ bu Buso ñoom ñaar dinañ waxtaane seen diggante ak lan la ci ndaw ñi mën a jàng ñaareelu temba mooy yàqu-yàqu jamono ji nga xam ne am na nan la ci ndaw ñi mën a mucce ci wet yëpp loolu mooy doon ñaareelu temba suñ noppee nag ca la ñuy amal cérémonie officielle ba bu ko defee bu 18h jotee ca la cérémonie officielle ba di amal bu cérémonie officielle ba jeexee ci la sëriñ xaadim ngay ñëw jàng ba 20h bi ñaanal ñëpp ñu demaat ba déwén ñu waajalaat ko sëriñ Ousseynou nee na mi ngi koy yëgal mbokki jullit yëpp ak mbokki taalib yëpp bàyyiwul kenn rawatina waa ndakaaru rawatina waa dëkk bi fii ñoom ñëpp mu ngi leen koy yëgal di ca sàkku seen teewaay ndax bis boobu kat mooy bis bi nga xam ne sëriñ lu Mbàkke àndoon naag sëñ Mbàkke Buso ak maam Cheikh Anta mottali yéene sëriñ Touba loolu nag jullit yëpp a ko bokk taalibe yëpp a ko bokk murit yëpp a ko bokk mu ngi séentu ñëpp di ñaan képp ku fa teew yal nañ ca taje fajuk aajo ak ndimbalal suñu borom ak ngërëmal sëñ Bàmba wasalaamualeykum wa rahmatullah